من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله فذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذا قضيت الصلاة فانتسروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لون انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله suñu déggee alquran ju tedd jooju ñu xam ni lislaam moo xewle ci ndigalu seex bu ma seex bu Sidi Maxtaar Kunta xalif général bu Njaasaan ci ñu ànd ci ak njabootu ahlu kunti yu yëpp ñun waa kër Mbambara kër Karamoxo ñoo am xew-xew bu mag muy xew-xewu diine bu yaatoo yaatu boo xam ne jumaay ji ñu toog suñu xalifa bu baax ba di cheikh bu di cheikh alxaaji maam bu mamadou moo ñu ko defaloon pose première pierre yàlla dogal tabaarakallaahu jumaay jooju la ñu liggéey tey ba mu àgg ñu war ko ubbi kañ lay doon ajjuma le 22 muy ajjuma bii di ñëw incha allahu rabbi ci lay doon fii ci mbambara kër Karamoxo ba weesoo kër Mor Ndiaye ci ndigalu xalifa bi tabaarakallahu mu war cee yabal njaboot gi yëpp ñoo àndandoo ñëw fii ci dëkk bi jumaay jooju nag ñuy ubbi mu tombe ak gàmmu annuel bi nga xam ni mooy am fii ci Mbambara Kër Karamakho ñu boole ko def ko benn kon le 22 ci la ñuy ubbi jumaay ji waaye mooy nekk gàmmu Mbambara Kër Karamakho ñan ñoo koy taxawee mooy ëhlu kunti yu yëpp tey jii yàllaa ngi dogal xalifa bi yabal fi sëtam doomam Cheikh bu Sy bi mu ñëw rek ngir teewe bés bi ba ñu xam ni xalifa bi moom moo woote lu toll nii ñoo ngi ciy woo mbokki jullit yëpp moo ngi ciy woo ñu ñu dëkkal ñëpp ñoo ngi ci woo mbokki tund bi yëpp ñoo ngi ci woo waa commune Fandène yëpp tabaarakallahu kon ñoo ngi jox kàddu gi suñu chef de billage alxaaji bàcc jaxate incha allah maa ngi leen di nuyu ci kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen di woo di leen woo ci suñu bis bu mag bi di ubbite juma ci ndigalu xalifa général de xadriya mbambara kër karamaxo bàyyi ñu kenn bépp julit fu mu mën a ne ci biir Sénégal bépp tarixa muy góor muy jigéen ñu ngi leen di woo ci suñu bis boobu muy le 22 décembre mu tombeek ajuma bii di ñëw incha allahu ca lañu koy defee bàyyi ñu kenn nag rawatina sama naataango yi di ay chef de village di comité ruralu Fandène bàyyi ñu kenn bépp chef de village bu nekk ci comité ruralu Fandène ñu ngi leen di woo fii ci Kër Karamoxo bis boobu ne ñëpp teew ne julit yëpp teew mbadem ba ma nanka naw me naw mbal fene wele la Karamoxo bugule ɓe weleli la wole anne ni juma day len loñe ni le 22 décembre ɗo aɓe ɓe a juma de ma cɛɛ don muso don an bali bɛɛ welela bamanan bɛɛ kɛ ang bɛɛ yan e, juma dayɛlɛ sufɛ ambe si kalana na fɔɔ Alhamdulillah, taa dugusɛ gɛ alhamdulillah bali bɛɛ welela alhamdulilahi rabilalamina assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit yi ngi di nuyu di len sante suñu teway bi nga xamantene teew nañu ko pour bugg ubbi juma bi ajuma bi di ñëw ñu ngi koy yëgal ñëpp képp ko xamante ne yaa ngi ci tund bi muy imam yi nga xamante ne muy kër Mor kër madaaro Mbambara Sérif kër Simbara Tawa képp ko xamante ne suma baat egul foofu maa ngi woo suma nawle yépp ngeen ñëw dimbale ñu ñu ubbi jumaa bi wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada eh, néegu yàlla la alhamdulilah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di ci am kontante di am bégte li nga xamante ni suub eh, soobu nañ ko te bugg ko ubbi yàlla nañ ci yàlla defal ndam yàlla defal ni ci sunu lu ñëw lu ëpp sunu njortu yàlla nañ ko yàlla def ci waa axalul kunti Eh, dem nañu ci xalifa bi egg eggeku ko muy seex bu sidil moxtar ibn bu na seex sidil moxtar ibn seex bu Mohamed Kunta dem na ci ab Mohamed Kunta mu doomu alaaji Mambu Kunta moo toog xalifa bi dem nañ ko yëgal ku ko mu kontaan ci lool sawar ci lool papa moo teg xeer bi il faut moom alaaji Mambu dundawtul yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare àjjana do nit ki sa xalifa su fa newul te doom baa nga foofu cër bi nga xamante ne papaam dox na ko ci dëkk bi ñu ñëpp gis nañ ko ñu am ci kontaan tëb mu bàyyi fii doomam lu ñu mën di def ci papaam te loxoom moo ci dëgg a dugg il faut ñu dem ci alaaji ma Mahamed ne ko ah sa sa papa xeer bu mu tegoon yàlla def nañu bëgg nañ ko ubbi bisu sàngam mu kontaan ci lool santu ñu maag chef chef de village ñoo demoon ak Aliou Sankare Eh, yéen ñi fi teew ñu ngi leen di nuyu bu Sidi Mokhtar ñu ngi leen nuyu sa teewaay fii kontaan nañu ci allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim mamadou tabarakallahu ndax moom wayjuram moo ñu tegaloon xeer wii ba noppi itam li wayjuram liggéey ci tariqa bi liggéey ko ci diine kenn mënu koo fàtte tabarakallahu kon nag ñoo ngi koy fàttaliwaat mbokk yi dañuy war a ubbi suñu jumaa ji ci mbambara kër Karamoxo incha allahu muy ajjuma le 22 décembre fii lay nekk ci Mbambara Kër Karamakho mu tombé gàmmu annuel bu Mbambara Kër Karamakho kon ñoo ngi jox kàddu gi Cheikh Ousmane Sankharé incha mu turu administration yi waaye woowaale mbooleem seex yi nga xam ni ñoom ñooy seexu kuntiyu te dëkk fii ci biir Thiès mu woo leen ñoom ñëpp Cheikh Ousmane bismillah ñëpp ci donc ñu ngi jiital ci nuyoo ci woote bi gouverneur de la région de Thiès le maire de la commune de Fandène Augustin Tine le sous-préfet de Kër Moussa les adjoints au maire de la commune de Fanden, maire Thiès S. Ousmane Diagne Nyong ngi ciy woo ak képp koo xamante ne incha allah ci kàttanu borom jot ku euh, Bari euh, Moussa Yam Ousmane euh, Ousseynou Keita Vieux Ndiaye famille feu Ali Ndiaye alhamdulilah rabbil Ousseynou Diouf fàttewuñu si itam Idrissa Diabaté ñu ngi koy woo docteur Ndiaye ministre docteur Ndiaye ñu ngi ko ci woo alhamdulilah rabbi ak Bakary Soumaré ak famille bi yëpp alhamdulilah di ci woo nag eh, suñu mbokk cheikh yi cheikh yi nga xamante ne ngànk axlu kuntiwu mu ci jiitalu Ablaye Jaxate ñoo ngi leen woo ñoom ñëpp bu kenn manqué incha allah ubbite juma bi le 22 eh, eh, décembre incha allah ci kattanu borom fii ci kër Karamoxo kër Karamoxo nag suñ ko waxee moom mooy dëkk sëñ bi dafa di dëkk boo xamante ne ak lu kuntiw muy euh, euh, sëñ bu mag bi borom Ndiassane moo ko sanc donc su ko sancee incha allah bi tey ci kàttanu borom ñuy dem ba ubbi suñu jumaa ñoo ngi ciy woo ñëpp ci turu xalif bi ci turu sëriñ si di ci woo samay am di jàmm samay xarit yi nga xamante ne tarixa bu ne jëlee ko ci Laayeen jëlee ko ci Tidiane jëlee ko ci Ceneba jëlee ko ci Ñaseen jëlee ko ci ba ci da njaam daamal fàttewu ñu kenn incha allah ci kattanu ñoo ngi woo ñëpp ci bis bu tedd boobu di ci woo waa administration fàttewu ñu kenn Thiès képp koo xamante ne am nga fi ndombo tànk ñoo ngi lay woo ci suñu ubbite jumaa ji incha allah le 22 décembre 2023 ci kattanu borom alors dégg woote gi xam ni woote jàmm la ñu ngi fii ci dëkk kër Karamoxo di dëkku lislaam di dëkku waa axlu kuntiwu donc ku dégg woote gi xam ni dañoo dem ci programme bu am doole bu am solo muy le 22 décembre prochain di aljuma bii di ñëw mu tombe benn bis boo xam ne day ñaar day am ñaari événement muy am ubbite jumaa di am ak gàmmu annuel gàmmu annuel boo xam ne dañ ko tàmmoon di def yàlla dogal ci Covid 19 ñëwoon ba Covid bi ñëwee ñu arrêté ko woon donc dañ koy defaat ci ren gii mu tombeek ubbite jumaa ci loolu nag ñu ngi woo ñëpp pratiquement ñi fi jaar yëpp tudd nañ ñooñu mais dañ ci woo ki si jiitu koo xam ne suñ ko woowee war nañ ko woo muy le maire de la commune de Fandène muy docteur Augustin Tine parce que dëkk bi dëkkam la.

di woo nag la jeunesse de Fanden particulièrement mais tous les jeunes de la région de Thiès ou bien du département de Thiès ñu ngi leen woo ci bis bi bis boo xam ne ñor nañu ñun waa Kër Karamoxo asalaamaaleykum wa rahmatullah nañu lool tabarakallahu kàddu yi rafet na ñoo ngi ciy woo waa Peykub Séeréer ñoo ngi ciy woo waa Touba Peykub ñoo ngi ciy woo Kër Mor Ndiaye ñoo ngi woo Kër Madaro ñu ngi woo waa Koundaan ñu ngi woo waa Aneen ñu ngi woo mbooleem tundu fanden yëpp ci suñu ubbite jumaa ji méngoog gàmm gi inchaa allahu rabbi kañ lay doon ajuma bii di ñëw di la 22 décembre inchaa allahu rabbi lay doon yéen waa kër Karamoxo moo xam Sankhare Kunda moo xam Kulibali Kunda moo xam Jaxate Kunda moo xam Sissoko Kunda moo xam si Kunda mboolem ku dëkk Kër Karamoxo te ngay sant Kër Karamoxo ña ca Dakar ña ca Ndar moo xam foo mën a ne ci réew mi tey dégg suñu kàddu loo jàppoon na ko bàyyi incha allah nga ñëw teew kon nag ñu ngi jox kàddu gi soxna Adji Gueye moom itam mu woo ci turu jigéen ñi. jiitu daayira Kër maa ngi ñaan ñëpp ñëpp ñëw teew si suñu bisu jumaa ji ajjuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi ne ñëpp ñëw bu kenn des maa ngi woote waa kër Moon Njaay waa kër Saara waa kër Demba waa Aneen waa kër Madaaru waa Ndiireen maa ngi woo ñëpp waa kër Sumbara waa Tawa maa ngi woo ñëpp ne ñëpp ñëw teew si suñu bis bi ah maa ngi woo ñëpp ne ñëpp ñëw waa Mbambara kër Karam bu kenn des yéen ñii yéen ñii bambar bambar kër kanam bu nit ñi ñëwee nañu fekk ni ñëpp ngeen tase fii ñu ñu ñu dalale gan ñi ne ku nekk génn génn sa ku nekk na génn sa ñëw dalale gan ñi waaw. kër Demba jigéenu Kundaan jigéenu Aaneen jigéenu Peykub Séeréer jigéenu Touba Peykub yëpp ñoo ngi leen di woo di woo suñu xarit suñu soppee mooy la directeur bu nekk bu AIBD e te mooy Abdoulaye Dieye tabaarakallahu ñëpp xam ko ci defam lu baax. jumaay ji participé na ci kon Ablaye Dieye ñoo ngi koy woo maa ngi jaarale woo bi ci Ahmed mbay mi chef de cabinet tabaarakallahu na ko na ko yëg ngir ngeen mën cee ñëw teew ci Mamadou Ñing bu Itacom tabaarakallahu maa ngi leen ci woo yéen samay nit ngeen samay xarit ngeen te fii mooy sama dëkku maam kon ñoo ngi leen ci woo yéen ñëpp ngeen bàyyi seen i yitte bés bi kañ la ajjuma bii di ñëw incha allah lan moo fi am dañuy ubbi jumaa ji bu ñu ubbee jumaa ji ci ngoon gi luy am gàmmu gu yaatu mooy am gàmmu gi kan moo koy taxaw Cheikh bu Diop Cheikh bu Diop mbooleem soppe yi nga xam ne ñoo dëkk ci ci tund wi ñoo ngi leen ci woo ndax mooy war a taxaw guddi ak ñan ak kilifa yi nga xam ne ñoom la xalifa bi di yebal ku mel ni Cheikh Bou Sibi ak ay magam ak i rakkam tabaarakallaahu ñoom ñooy ñëw kur teew kon nag ñu jox kàddu gi sëriñ bi di Cheikh bu Sibi incha allahu rabbi ki nga xam ni moom mooy di yiite délégation bi ñëw fii ci ubbite jumaa ji ak gàmmu gi mooy porte parole xalifa bi kooko fu mu teew xalifa bi moom moo teew ndax inna rasula bi qadril mursali tabarakallahu kon nag bu ko defee ñoo ngi jox cheikh bu sii bi waaye di woo jeune u mbambara kër karamoxo yëpp nañu mobiliser wu nañu taxaw parce que gan yi ñëw suñuy gan lañu nañu génn suñuy kër nañu bàyyi suñuy lal nañu taxaw temm ci suñu ginnaaw chef de village bi taxaw temm ci suñu ginnaaw imam taxaw temm ci mboolem notable yi dëkk Kër Karamakho ngir bés bi ñu mën cee taxaw taxaw ci bu baax a baax sant ci bu baax a baax Cheikh Ousmane Sankharé mii taxawaayam kenn ku ne xam na ni rafet na day jóge Thiès bés bu ne ñëw fii ngir war a nemmeeku si jumaa ji tabaarakallaahu kon nag cheikh bi ñu ngi lay jox kàddu gi nga wax ci turu xalifa bi woo say mbokk ba noppi ñaanal ñu inchaa allah aoudu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa billahi tawfiq wa bihi nastain wala hawla wala quwata illa billahi alaliyu azim qaala jalla wa ala yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasul ida daakum lima yuxyikum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi wax kàddu gi ci ndigalal xalif général xaadiriya di sëriñ bu sidi moxtaar ci woote boo xamante ni ku déglu aaya alquran bi ñu ibbee mooy waaxu leen daw leen wuy ci woote boo xamante ne dañ leen cee woo pour ngeen dundee ci seen diine waaye defaroo ci seen diine euh, ci kan muy borom bi subhanahu wa taala akub yonentam suñ leen woowee kon sëriñ bi nee na kodd googu muy woote muy ibbiteg juma ak gàmm moom xalif général xaadir ànd koog dëkku njabootam bii nga xamante ne mooy dëkk maamam cheikh bu mohamed kunta di mbambara kër karamaxo waaye sëriñ bi wax ni moo ngi ci woo mboolem euh, mbokki jullit yi waaye mboolem mbokki xalif généraux mi waaye dale ko ci ay dëkki boppam di ay dëkk yoo xamante ni euh, moom ay maamam ñoo ko sanc lu mel ni ndànk te rakkam nekk fa di sëriñ ndànk di sëriñ Mohamed Mahfouz Kunta ànd ko ak euh, waa Guyette Sërif te doomam nekk fa di sëriñ di Sërif di xalif général bu Guyet Sërif ak euh, Ndeer Naar doomam nekk fa di sëriñ Mouhamed Muslim Kunta sëriñ bi nee na moo ngi leen ci woo waaye di ci woo doomam it tamit di sëriñ Sanc Buuna di Cheikh bu Mouhamed ñu gën koo xamee ci sëriñ Wulu Baay sëriñ bi nee na moo ko ci woo di ci woo mboolem këru kunte yi ak mboolem lu askanoo ci kunte di taalibe waaye di ci woo mboolem jullit yépp rek di ci woo mbokk mbokk boppam di xalif général bu Touba di Serigne Muntaxa Mbakke Serigne bi nee na moo ngi ko ci woo di ci woo mboolem mbokki e, Touba yëpp ak ay seenu njaboot waaye Serigne bi wax ni moo ngi woo tamit e, waa Tiwaawan ca jiital ci xalifa ba muy xalif général Tidjani muy Serigne e, Babacar Sy Mansour waaye muy wax ni moo ngi woo dëkkandoom bu baax bii nga xamante ni moom dëkk yi ñoom ñoo féngoo muy Serigne. Euh, xalif général bu Thiénaba Seck di euh, Serigne Hassan Seck Serigne bi nee na moo ngi ko ciy woo Serigne bi wax it tamit ni moo ngi ciy woo xalif général Layeen Serigne bi nee na moo ngi ko ciy woo di ci woo mbokki jullit yëpp ak mboolem jullit yi waaye ak mboolem njabootu taalibe yi nga xamante ni ñoo aju ci kër gi Serigne bi wax ni tamit moo ngi ciy woo ki nga xamante ni tey moom moo tooge xalifa alhaaji Mambu Mamadou muy Serigne Mohamed Alaaji Serigne bi nee na xam na ni yëg na ni way juróom di alxaaji maamu Mamadu moo ñaanoon ci jumaa ji moo tegoon xeer bi sëriñ bi nee na moo ngi ko ciy woo di ko di ko wax ni loolu nga xamante ni sa jur daf koo niseroon te mu eggee ci ak kayam ñu war koo ibbi sëriñ bi nee na moo ngi la ciy woo di la wax ni bis bi sa bis la yow ak say njab yow ak say rakk ak sa ak say e, njaboot yëpp waaw sëriñ bi waxit ni e, doomu baayam bi nga xamante ni ñoom ak seen maam yi kóllëre bu yàgg la muy waa kër Mor Njaay gi te ci njiital xalifa ba di sëriñ Pakala Ndiaye sëriñ bi waxin ni bis bi bisam la gan gàññee ay ganam nañu ndax moom ak ñoom seeni maam ak ak ak Cheikh bu Mouhamed Kounta kóllëre gu yàgg la kon sëriñ bi nee na ku fi ñëw rek ñoom nga ñëwal sëriñ bi nee na mu ngi koy woo bu baax ci ci bis bi moom ak ak njabootam ak i taalibeem sëriñ bi waxit ni moo ngi koy yëgal xalif général kër maam El Hadji ci njiital xalifa ba di sëriñ Muniru Njegen waaye eh, dëkk bi dafa am seen dëkkandoo bu nekk fii nga xamante ni moom mooy Serigne Cissé Ndiéguène nekk fii Kër Saara Serigne bi nee na moo ngi koy yëgal bu baax moom njabootam la mbokkam la euh, Serigne bi nee na moo ngi koy yëgal bu baax di wax ni gan yu fi ñëw daal ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko gën a jege fii seeni gan nañu ndax Serigne bi wax ni moo ngi ci woo euh, rakku boppam bi nga xamante ni euh, ku xam Kër Karama xam ko diggante moom ak Cheikh Sidy muni mo ngi ci wo khalifa Cheikh sid Lamine bu di sëriñ Sidi mahtar ibnu Cheikh sid Lamine sëriñ bi wax ni mbollem ñi nga xamanteni ni moom ñoom yi nga xamanteni ñoy dekkando yi wër kër Karamaxo sëriñ bi neena mo ngi len ci mo ngi len di yeggal bis bi di len wax ni bis bi ginaaw bi mu ñoré yàlla ñor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te imam wax ko wa anna masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahad yàlla mo sàkku ni jumaa ju ju nit tabax wala jàkka nee na loola foofu booy wët néegu yàlla na nga dem juwal foofu mooy sama néeg moo tax mu bañ bi ba ni bu leen fa woo kenn bu leen fa woo lenn ku sunu borom subhanahu wa taala sëriñ bi wax ni kon bis boobu bis bu ko ñor la moo ngi koy yëgal président de la république ak membre gouvernement bi yépp ak ñi nga xamante ni moom la Cheikh Ousmane Lim tudd leen ak euh, Racine di directeur cabinet maire ak ñoom seex Bàcc ñiñ fi lim ñëpp sëriñ bi nee na ñoom ñëpp doon wax ci ay kàddoom nañ waxee seriñ bi nee na ñoom ñëpp woo na leen te di leen wax ni bis bi kat moo ngi leen ci xaar di leen ci di leen ci séntu di ñaan yàlla commencement bi ba digg beeg jeexital bi yal na yal na yàlla def lépp muy ngëneel waaye muy doon fajug ajo zahiran wa baatinan bi jaahi rasul sallallahu alayhi wa di waxit Euh, euh, bis bi dafa ànd ak gàmm muy ñaari ñaari programme ci benn bis sëriñ bi nee na ñaar yëpp a ko ñor kon moo ngi leen ci woo di leen ci séntu incha allahu rabbi bu bis baa nag képp koo xamante ni sa ñaq tuuru na ci ci jumaa ji daañu la gërëm daañu la sant daañu la ñaanal ci ndigalu sëriñ bi euh, lii ñu doon defit ñoo ngi ko defee ci ndigalal porte parole di sëriñ xalifa kunta mi nga xamante ni moo yar moo yor kaddu xalif général bi ñun dañoo nekk fii rek ànd ak ñom ci liggéey bi doon ay talibé bëgg taatan ci barke mag ñi loolu motax ñu jël kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ci barke khalifa bi yàlla nako yàlla def sëriñ bi mi ngi ci wo xaritam di ci wo sopem di sëriñ Pakala Ndiaye bu kër Mor Ndiaye tabarakallah sëriñ Pakala mbollem lu xew fi ci kër karamako mom mo ci taxaw mamam mo dalalon suñu mam fi ndax khalifa bi bam fi yabalé suñu mam mu ñëw fi mamam moko dalal fi tabarakallah mu nekk fii ñun ñaar ñuy ay dëkkandoo Serigne Pakala su mënul ñëw ci yenn événement yi fi am dana yebal Serigne Adama Ndiaye ak ay am kon nag ñoo ngi woo Serigne Pakala Ndiaye tabaarakallaa xam ni bés bi bésam la incha allahu rabbi kañ lay doon ajuma bii di ñëw di le 22 décembre tabaarakallaa ubbiti jumaa ji la ñuy njëkkee kon nag ñoo ngi def mise en place jumaa ji à partir de 12 heures incha allah na fi ñëpp daje ñu mën a def mise en place bi julli ci njiitalu imam incha allahu ak ñi xalifa bi di yabal bu ñu àggalee ci la ñuy def cérémonie officielle gàmmu gi incha allahu rabbi bu guddi gaa nag ci la cheikh bu Diop di ñëw ànd ak waa Ndiassane yëpp ma di ci woo sama xarit sama soppe Cheikh Sidi Yaxya Kunta tabaarakallah ak mbooleem ku ku askanoo rek ci maam bu yàlla na yàlla may ñu ñu fekk ko ak jàmm kon waa Kër Karamoko bés baa ngi noonu mbokk yi bés baa ngi noonu jullitu yàlla yi bés baa ngi noonu ñu ngi leen di woo ajjuma bii di ñëw dès le 22 décembre à partir de 10 h dal kuy julit na nga ñëw ressortissants yi nga xamni ni ñoo dëkk Kër Karamoxo ca Dakar ña ca Thiès ña ca Ndar ña ca feneen ak fenen ñom ñëpp ñu ngi leen di ñaan alhamis nañu wacc ci fanaan si ndax ñom ñoo wara a teeru seen gan yalla nañ ci yalla yobbu ak jamm yalla bu daje bi nek suñu mujjantalu daje khalifa bi yalla nak fi yàlla ba ci kanam kanam incha rabbi kon sëriñ bi nga ñaan